Ibrahima Diallo maa ngi lay nuyu. oui maa ngi lay Diallo nga bokk ci APR euh, Kébémer premier vice-président du conseil euh, départemental de Kébémer déjà ngeen désigné président Macky Sall comme tête de liste seen coalition ci élection législative yu 17 novembre 2024 euh, lan moo waral ngeen taamu euh, président Macky Sall comme tête de liste. voilà Ndeye Comba dama lay nuyu di la sant ci interview bi nga ma defal nii. Euh, benn d' abord euh, Macky Sall bu ñu ko defee tête de de la coalition wàllu taxawu Sénégal je pense que euh, lu jaadu la du fait que Macky Sall kenn gënu koo xam réew mi beneen bi aussi mooy que au sein de l'APR moom nekk na koo xamante ne vraiment moom mooy secrétaire général parti bi te amul xaar na yàlla kenn ci parti bi. beneen bi aussi mooy par rapport ak ñi nga xam ñoo constitué coalition bi ay nit lañ ñoo xam déggoo na ak ñoom bokk nañu gis-gis ndax ñoo bokkoon seen parti PDS ay libéraux lañu donc ak ñeneen ñi nga xamante aussi bëgg nañu réew mi te nekk des hommes d'État je pense que Macky Sall jiite lu ci mooy li nga xamante moom moo yey te moom lañ gën a yaakaar ne que moom mën na may coalition bi daal ndax kenn gën koo xam réew mi te aussi liggéey na ci réew mi loo xamante ni mën nañ ko def tête liste population bi gën ko jox confiance xam ne réew mi dafa tollu jafe-jafe ak situation bi mu toll loolu andi Macky Sall demandé à ce que ñu def côté de liste wala mhm. euh, tey jii est-ce que kon euh, président Macky Sall dafay ñëw battre campagne ci seen euh, wet wala. donc loolu mooy loolu loolu loolu bu mënee nekk mooy li gën bu mënee nekk aussi dina nekk lu jaadu bu mënee nekk aussi dina nekk ndimbal ci coalition ndax Macky Sall xam na réew mi. te jaadu na mu ñëw campagne ndax wax ak askan wi ndax bari na fi loo xamante lu fi xew ci ginnaawam loo xamante ni de ko de ko dañ ko koo jam directement te war ci indi ay tontu beneen bi aussi ñu tuumaal ko ay àndandoom te war ci indi ay tontu ar ci ay leeral ndax réew mi dañ ko ko dénkoon te bañ ko ko dénkee ba léegi ba mu fi jógee ba léegi weesoo livre blanc bi nga xam génn na ko amul leneen lu xam wax na ko ak askan wi donc mu ñu battre campagne xamal askan wi lan moo tax moom mu nangu nekk tête de liste bi am solo la lan moo waral aussi moom mu waral ñëw ànd ak ay coalition ak lan la gis ci réew mi lu ko jaral moom mu def loolu ndax itam réew mi ñun ñëpp xam nañu métti na te moom bokk na ci nit ñi nga xamante ji bu ñu waxee askan wi ko déglu donc loolu dina nekk lu am solo bu ñëwee ànd ak coalition Badji Camara te loolu la ñuy xaar peut-être ci moom. Hmm. beneen mbir bu jur coow APR jaxasoo ak parti démocratique sénégalais ñu bari euh, xaaruñ ko woon parce que euh, parti démocratique sénégalais lu bét lu metti lu ñu dund alliance pour la république moo leen ko yóbbee wala sax président Sall lan nga si mën a wax. voilà donc APR nekk na partie boo xamante ni vraiment mën naa wax ne jafe-jafe yu bari yu ñuy dund mooy peut-être dañoo amul woon benn organisation bi bu taxawoon ci base bi mais n'empêche am na ba léegi ñoo xamante ñu ngi gën parti bi nekk ci di ci liggéey di ci xaar aussi que yeneen échéance yu ñëw ñu fidèle ndax politique ngor la te je pense que li ci ëpp solo mooy que coalition bi nga xam ànd na muy PDS ak affaire ak réew mi boo xoolee ñoo bokkoon seen PDS ñoo bokkoon seen libéral donc bu ñu retourné woo c'est parce que réew mi moo ko laaj politique day évoluer day toll jamono joo xam ni nga xam mosuñoo laale mën nañu ànd parce que intérêt population bi mooy taxaw du seen intérêt bopp ndax boo xoolee tey ñi constitué coalition boobu nga xamante ni c'est des hommes d'état yoo xamante ku nekk ñoom yoroon na ab responsabilité ci réew mi amoon na taxawaay bu ko permettre mu wax ak askan wi ñu déglu ko bu réew mi tolloo ci jamono ji yu mel nii surtout xat-xat yi war nañu mën a boolewaat seen doole ñu taxaw woon réew mi ni que ñun au moins bañ fi nekkee am na luñ fi def ci lu baax mais am na loo xam aussi tey fekk nañ ko bi te war nañ ko wax population bi pour ñu xam ne que lii fi nekk nii taxawaay bii lañ war a taxawee pour euh, beneen ponk bu am solo fi ñu toll nii Ibrahima naka nga gisee euh, réew mi série de convocation yi bari na am na aussi ñoo xam ne jot nañ leen euh, teg loxo ci régime mu Diomaye bi parce que joxe nañ peut seen xalaat naka nga gisee mbir moomule ak aussi yenn manifestation yi nga xam ne ñu ngi koy tere. donc li am solo mooy lii moom lu ñu mën a xaar ndax itam. ki nga xam moo nekk premier Ousmane Sonko ba muy jël avant mu jël réew mi bu nekk opposition dafa doon taxaw naan bu ñu jëlee réew mi am na ñoo xam danañ leen tëj kaso am na ñoo xam dana nangu seen alal am na ñoo xam dana leen def lii dana leen def lii loolu menace la woon yu mu doon def bi mu nekk opposition donc waroon nañu xaar ne que moom bu jëlee réew mi yu mel nii mënta ñàkk li may wax rek mooy que nañu xam ne réew mi réewu yoon la la séparation des pouvoirs fii la nekk fii lañ ko fekk fii lañ koy li am solo mooy ñi nga xamante ñoom ñoo jël réew mi yor réew mi nañu fexe ba nga xamante convocation ñii ñuy convoqué bu fekkee jàpp na ne nañ wane li leen jàppee ñëpp xam ne ñii lii la def moo tax ñu jàpp leen lii la def moo tax ñu woo leen ndax tuumaal nit woo ko te amoo dara loo teg ci loxoom loolu jaaduwul te bu sàggane itam lii ñuy def nii da leen di yàqal doomu ñoom ñi nekk ko pouvoir ndax boo toppee ay nit di leen topp di xeex di jàpp di tëj di jàpp di tëj munoo jàpp Sénégal yëpp tëj leen munoo jàpp pratiquement les trente quatre pour cent wala les vingt cinq pour cent de la population ñu ànd ak gars yi nga tëj leen li ngay mën mooy jàpp tëj tëj depuis yoo ci tëj am na ay nit ñu ko bëgg ñoo xam peut être sax ànduñu woon ak moom politique mais yow yi ñi leen jàpp yow lañu àndaloon politique di la jàppale mais ku sañoon Sénégal yëpp ay mbokk loolu day seen doole ñoom mais du leen di yokk li may wax rek mooy képp koo xam tuumaal nañ ko que dafa jël alal réew mi nañu fexee ñu woo ko buñ ko jàppee nañ ko génne teg mu leer nañu ñu xam ne kii lii lañ ko jàppee lii lañ ko wooyee mais mu bañ nekk loo xamante ni daal xeex la wala fayantu la je pense que réew mi war na mën a dépassé loolu ndax ñoom bu doon fayantoo kese at xeex anaamu ñoom buñ jot ci réew mi. Hmm. kon nanga gis ni euh, mbirum reddition des comptes bi est-ce que am nga yaakaar wala confiance ci pôle judiciaire et financier bi nga xam ne euh, nguur gi moom la teg pour reddition des des comptes. non man pôle pôle pôle financier man yaakaar naa ni ay ay nit ñu am valeur ñoo fa xam yoon ñoo fa nekk. ay ñoo xamante ni Sénégal moo ñor ñoo fa nekk ci li ma yaakaar bokk. ba tax na jàpp naa ni képp koo xamante ni tuumaal nañ ko ne dafa yore xaalis bu lewul wala yore alal ju réy wala dafa détourné xaalis réew mi nañ ko woo ci njekk ak teraanga mu ñu jàpp ko li daal li yoon wax ñu teg ko ko mu delloo alal réew mi ndax Macky Sall li mu fi waxoon leer na neewoon na je ne protégerai personne bu ma nekkee ci réew mi ñoom waroon ñu xam ni képp ku jël réew mi dana leen woo képp ku def naka sudul dul noonu xam nga ndey ku ma def am lu jaaduwul mm-hmm. réew mi metti di mu metti nga gis ay ñoo xam dañoo yoroon ay ndomba tànk ñiin la ñii yorandoo mooy tànkat alal réew mi mu ngi seeni loxo da nga naan buñ leen mënee jàpp na leen jàpp ñu delloosi alal réew alal réew mi képp ku nekk ci loxoom na ko delloo képp ku nekk man loolu laa wax loolu moom ñu sénégalais yëpp ñu d'accord sénégalais yëpp ay loolu mais dañuy bañ rek mu doon loo xam ab fayantu la wala xeex ci kaw xeex Mhm. Euh, dernière question naka nga gisee euh, situation réew mi sur le plan économique et financier euh, mu nekk situation bu difficile boo xam ne sax PM Ousmane Sonko moo koy confirmer naka nga ko gisee. man Ousmane Sonko premier ministre la donc réew mi moom depuis bu mu nekkee opposition moom da doon wax day metti kon bu jëlee réew mi kon ñu wax ne day metti rek daf ñuy xaw a jaaxal ndax boo nekkee opposition nga naan réew mi dafa metti boo jëlee réew mi da ngaa war a indi solution. ndax li metti ci réew mi yëpp waxoon na ko ba mu nekkee opposant kon tey bu jëlee réew mi li ñu xaar ci moom mooy mu wax solution fi mu jëmee réew mi fi mu jëmee réew mi nag amul yow mu yow muy man amul kenn ko ko xam ñun foofu lañ ko doon xaar réew mi ñëpp xam nañu metti na ndax juin ba fi FMI ñoom dañuy woon lépp a baax juin ak léegi ñoom ñoo fi nekk ñoom ñu fi nekk juin ak léegi ñoom lañ wax population lan lañ fi def ak fan lañ jëmee réew mi man je pense que loolu moo ëpp solo nekk fii di accuser ay nit. ndax accusation yi du fi jóg loolu du devoir am justice na def liggéeyam mais moom li ñu xaar ci moom en tant que premier na joxe orientation yi leer nañ gouvernement am joxe orientation yi leer nañ ñu xam ne ñoom ñi yore réew mi fii la ñu jëmee réew mi mais fi ñu fekk réew mi ñun ñëpp xam nañ ko ndax fekk nañu réew mi mu am stabilité financière économie bi di dox boobu taa FMI wax ko donc tey bu ñu ñëwee après six mois après ñu ñëw ne réew mi doxul réew mi dafa yàqu man loolu man li may wax mooy seen responsabilité génn kon nag ñoom nañ fexe ba nga xamante ni ñu yëkkati ay solution teg ci askan wi ku kuy dund ci réew mi xam nga ne réew mi nekk na nit ñi liñ daan jënd fukk tey ñaar fukk lay jar double bi nit ñi liñ daan jënd téeméer tey mille franc tey dëkk bi dafa yokk yokk boo xamante ni kenn mënu ko comprendre te loolu ñoom seen responsable donc nañu fexe ba nga xamante ni tey ñoom ñu indil la solution pour alléger li nga xamante ni moom la population bi dund te loolu la ñuy xaat te boo xoolee ne population yi leen voté yépp donc changement lañu bëgg mais bugguñu ay neefee di di di di di tontonte ak a xeex ak a xuloo donc ñoom nañ ñu indi lu leer teg table yi loo xamante ni population buñ ci sukkandee da nga xam ne kat ñii yore réew mi kat fii la ñuy fekk réew mi mais fii lañ ko jëlee mais ñun amul kenn ko xam fi réew mi jëm pour le ñun amul kenn ku la mën a wax réew mi fii la hmm. nga xam ne wax na ni dañ ko falsifié euh, da nga jàpp ni du dëgg. chiffre hmm. yi ñu joxe waaw. man chiffre yi ñu joxe. man mënuma wax ne dëgg la wala dëgg xam li ma mën a wax mooy. Mhm. mooy chiffre yooyu ñi ko joxe. ak ñoom ñi nga xamante ñoom ñoo ko joxe. ñoom ñoo yore seen responsabilité par rapport à ça. li am solo mooy population Sénégal dañoo mérité am dëgg bi ñoom wax nañu chiffres yi ñun on attend de l'autre côté ñi nga xam ñoom ñoo yore woon aussi nguur gi ñu génne ay chiffres wax mu leer parce que ñee nañu am na am na benn kilifa bu mag bu ma mës a waxal mu ni ma gis nga tuuma weddi tuuma teggiwul tuuma xamal nga lan mooy weddi tuuma mooy nga ñëw indi ay preuve teg mais ñëw di weddi man mënumaa weddi loo xamante ni ko. Hmm. li may wax rek mooy que réew mi toll na foo xamante ni ñun ay ay tuumaal ay nit jóge ni war nañ dépasser étape boobu étape bi ñu war a toll mooy fan la ñu jëmee réew mi. li ki nekk ci ay chiffres réewu Sénégal bu fekkoon yaakaaroon naa nekkoon nañ ci doon modifier ay chiffres njëkk kon FMI du fi ñëw mois de join ne réew mi tout est vert ci réewu Sénégal ci ñun ñun aussi Sénégal nekkul réew mu nëbbu réew mu rax mu mag la tey monde le monde entier tey xam nañ Sénégal ñu toll donc munoo ñëw wax li ngay wax te li nga koy wax dèjà sa ñetti weer ñi nga fi nekk boobu am nañu fi ñëwoon ne loolu lépp baax na te loolu donc ñooñu ñëwoon wax na ko ñooñu ay complice lañu par rapport ak xew donc lañu wax di gën a leer mooy ab askan nañ leen wax lu leer te important que ñoom li ñuy communiquer nañu communiquer lu leer li nga xam aussi ñoom lañ tuumaal ñu ngi leen di lancer ndax ñun ak ñoom bokkoon sax ñu ngi leen di lancer appel nañu lu leer ko ci as ndax nit ki la tuumaalee kat doo weddi tuuma da ngay indi preuve teg Mm. ndax Ousmane merci beaucoup euh, Ibrahima Diallo ñu ngi lay remercier bu baax a baax. ñuy ah. fàttali ni Ibrahima Diallo yaa ngi bokk ci euh, APR bu Kébémer nekk premier vice-président du conseil départemental de Kébémer jërëjëf Ibrahima Diallo.